du ci xët yu njëkk yu yéenekaay ak ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Sénégal toroxal na boppam ci Angola Walf Fadjri moo ko bind ne coowal gaynde yu jigéen ya ñu falang ca Coupe d'Afrique handball ba ci Angola moom la yéenekaay bi xëyee xale yu jigéen yi dañoo suwe ba yegg ca final ba war a daje ak Angola Tunisie bind kuréel gi ngànk handball bi ci dénd ba Afrique bi ne leen ci xale yu jigéen yi Sénégal indi ci Coupe d'Afrique ba am na ci xale bu jigéen boo xam ne waru caa bokk Dungu Kamara la tudd gaañe càmbar ko biir ak biti ca la gisee ne war Tunisie wax nañu dëgg ca la ñu final bi ci Sénégal jox ko Tunisie war cee daje ak Angola dem gi ñu waroon a dem ci Coupe du monde handball 2017 ba loolee xañ nañu ko wal fajir nañu fi ñu tollu tembe suñu réew di Sénégal mook tama ñoo tollooy buum ci déndu bu Afrique bi su du quotidien nañu Sénégal disqualifié nañu ko ci final bi ba noppi aj ko ñeenti at quatre ans la ko suspendar le témoigné nañu Sénégal dàq nañu ko ci coupe d'Afrique ci wàllu handball ndax njublang maanaam fraude direct fa nañu loolee lépp administration bu fooyoyal la administration bu woyofal administration bu waral coow li aj nañu Sénégal ñeenti at ba noppi xañ ko mu dem ci coupe du monde handball 2017 l'observateur nañu naam dogal bi rot waaye taxul kilifa yore handball bi ci réewum Sénégal fas ko bàyyi mu sedd noo ne dañuy dem kalaame ji ko fa mbaxana doone benn ci wàllu handball nañu ànd bàyyi bal bi teg ko ci suuf te wax ci leneen mu di li ci direct info ab laaj la journal bi xëyee li muy laaj moo di visite d'état bi Macky Sall war a def ca France fukki fan ak juróom-ñeent Sall googee ca France direct nañu li ko nar a yàq rek moo di waa Parti démocratique Sénégal ak waa Manko Wattu Sénégal nee nañu dañ cey def doxum ñaxtu fii ci Ndakaaru ak ca France gan gi di Les Échos ni ñu li ñu ne ca nganuk Macky Sall ga ca France ñoo ngi seeti pexe ngir Macky Sall dem seeti Abdoulaye Wade ca Versailles loolee Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal weddi nañu ko ay sos sax la ñu ko jàppee ki ñuy sosal xëy na weddi lu bari ci l'Observateur mu di Mamadou Diop Decroix ma nga naan song yi ñu koy song moom Diop Decroix amul benn intérêt Manko Wattu Sénégal mënuñu du coalition buy dem ci élection force politique la délégation bi demoon seeti Macky Sall ca palais ba Mamadou Diop Decroix nañu ña nekkoon ca délégation boobee Alaaji Malick Gakou moo leen tànn Ousmane Faye bu PSD jant bi nañu ci direct info Malick Gakou amul mu wax ne dafa daw wëqet moo waroon a jiitu ca délégation ba demoon gise jeeg Macky Sall waaye kenn gisu ko fa kenn déggu ko fa télé mu ne moo ko teree dem ca ndajama ay waxi bàll puy de la wax la judul dëgg Aminata Mbengue Ndiaye xëy na ay dëggam ci Vox li mu ne ja ndax nee na muy Senghor di Diouf di Abdoulaye Wade ku ci masa doon président rek def nga li nga waroon a def ministre de l'élevage bi nañu li ko wër péng daal moo di Macky ak li mu def ci wàllu càmm gi Abdou Diouf defu ko fi Abdoulaye Wade ko fi Léopold Sédar Senghor defu ko fi Aminata Mbengue Ndiaye teg ci ne su mbaam duufee neexitaan ne Macky ak bilan nu mu mën di demee ca la bokk ma nga ca Macky mi ngi ci laas ressources naturelles yi ci réew mi journal bi nañ diggante Macky Sall ak Arouna Dia léegi leer na nañ réew mi quotidien nañu ak juboo am na ca juboo gu rëy journal bi dañu fàttali li indi jafe-jafe yi fàttali ñu diggante Arouna Dia ak Macky Sall ne parti bi di APR ba muy soog a juddu 2008 Arouna Dia moo ci moom Arouna Dia fan yi ñu génne ne xootoon ak Macky Sall li ko waral moo di Arouna dafa gis ne Macky Sall dafa jël Farba Ngom teg ko ci kawam moom it mu gis boppam tax mu téye boppam moo woolu Daouda Dia rakki Arona Dia ca palais ba mu dem toog gisee ak Macky Sall ñu waxtaan ba juboo rakki Arona Dia ju jigéen ji ñu boole ci au conseil collectivité territoriale réew mi quotidien nañu la tax ñu def ko bokk na ci gën a rataxal diggante bi loolee la ñu ca jublu ma jublu ci xët mu njëkk l'observateur maaraabu bii di Seydina Omar si ñu naan ko bàyyi si di sëriñ ba nekk ca njaareem te ñu ne dafay fëkk xale yi ku dugg ca këram dootoo génn këram googee l'observateur xëy na fa dugg ba génn Seydina Omar si di bàyyi si bari na lu mu wedd ci lañ koy waxal li ñu ne day këf nit ñi maanaam day jëlee otage nee na loolee amul li ñu ne dañuy lekk nit nee na amul li ñu ne dañu ko dàqee ca Touba mu dem dëkk njaareem looleet amul les échos xëy ñun ci mbir mu am mu di benn commissaire de police bu nekk ci réew mi boo xam ne rakkam dafa violé xale bu jigéen bu toll ci fukket ak juróom benn maanaam 16 ans yëf yi ca Pikine Icotaf la xewee moom waa ji def loolee yoonoongi koy wër wër gu miti waaye nag gis ko du gaaw ndax i yu mag yu nekk ci police bi les échos nee ñoo ngi def seen kamtalaay kàttan ngir nëpp nëppal yëf yi xaalis bu bari la jël teg ci taabal ji ngir jox ko njabootuk ñi ñu weeloo seen doom lépp rek ngir nëpp nëppal yëf